maajaal si mbedd mi bu guddee ñu dem naa ne ko sàngara maa ñu dem jëlee ko yàmba. Mhm, mhm. ñooñu ay bayfal lañ. déedéet déedéet. ñooñu kenn bu yow mii sa bopp yow bëgg nga ñu nekk bayfal. déedéet déedéet xalaatu ma. dama leen di bàyyi nekk ci dëkk bi di yàqu turu turu euh, daru seen. asalaamaaleykum sama gars yi maa leen nuyu bu baax di leen ziare seen mbokk la seen xarit Tafisco 221 gars yi ba leen fàtte abonné ak partage ak like waaw dañu nag ci lu gàtt gàtt si li maam Thierno Ibrahima Ndamal Dara wax bayfal yi ba tax na am xam ne li mu daf leen métti am na ñoo xam ne nag métti leen na xam nan fi muy waxee mais nag bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax bu fekkee am na ñu xam xam na ne li mu wax ne lu am la maa ngi jégalu bu baax a baax mais wax na dëgg am na ñoo xam ne dañuy bàyyi Fall woote nag ñi nekk Touba di liggéey maam si Raam lu mu woote ñu dem sax bu wootee marché occasion ñu liggéey bu wootee euh, fenn ñu liggéey mais am na ñoo xam ne du nekk si biir dëkk bi. Thiès lañuy nekk Mbour ak Dakar sol seen yëre Baye Fall ah, def seen ay ndeñ di wër di maajaal naan. xaddiyee maam seeraam Fall lu leen jox ñu jëndee ko ay naan di tux ah pare naan ay bayfalan ñooñ ñoo yàq waa kër maam seeraam Fall gi tama loolu yàgg na ko kaas bu metti ma lool sax barke alxuraan li ma lu am la mais waxatu ñett toog si seen lu maam seeraam Fall wax ñu ànd sax moom mais li ma wax nii fekk ginnoo loolu doo ko seen oto la yor yor seen ay suur di may daal wasalaam dëggal nag billaahi man moom li maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeyal Serigne Touba ah ak yàlla suñu borom ban tegal ko war ak julli foofu moom du ma ci sori ndax sama baay fekkewul sama maam fekkewul te nag xamuñu ci dara kon du ma sori mais li maam Cheikh wax laay wax man foofu laa foofu laa waxee man li mu wax rek man foofu laa yem waaw li mu wax am la wasalaam gars yi ba leen fàtte abonné partagé et like jaa ngeen